kon nan la ñu war a mën a bàyyee réew moo xamante ni tey yor nañu ni ma koy waxe or mu ngi fi marbre mu ngi fi phosphate d'alumine bi nekk Ndendoori mu ngi fi tey jii ñun ñoo yor troisième mine de zircon du monde derrière l'Australie l'Afrique du Sud réserve yi toll ci 3 milliards 200 millions de tonnes ñu ngeeg phosphate bi nga xam mooy phosphate de calcium bi nga xam ne tey ji nu avons les meilleurs teneurs de l'Afrique voire du monde mu nekk Tóobén moom la ñuy nal pour génn ci acide sulfurique acide phosphorique ak phosphogypse boo jegee foofu tey jii yaa ngeeg des millions et des millions de tonnes ci calcaire bi nga xamante moom mooy matière première u ciment yaa ngeeg basalte yaa ngeeg attapulgite yaa ngeeg leucoxène yaa ngeeg rutile yaa ngeeg tey jii kaolin yaa ngeeg tourbe yaa ngeeg gaz gaz yaa ngeeg pétrole yaa ngeeg sept cent cinquante millions de tonnes de fer de la Falémé tey jii tu as vingt neuf blocs de pétrole au Sénégal sept en off en sor mooy ci jéeri ji treize en offshore et neuf en ultra euh, ci biir ca biir géej mooy ultra deep kon tey jii bu fekkee ni tey yor nañu lii lépp ci réew yor nañu lépp ci réew mm-hmm. yow nga am ndox mu neex Saint-Louis ba Bakel c'est de douce kenn waranteetu ko ndox mu neex la Saint-Louis ba Bakel tey jii ma wax la tey ndox mu neex biy jóge ci fleuve Sénégal di reversé wu ci océan Atlantique bi. Mhm. débee mu ngi toll ci six cent quarante mètres cubes à la seconde cela diir dire que ni ci année bi dina jël ci ndox mu neex moomu di ko xoole muy këpp ci océan Atlantique bi mu ngi toll ci vingt milliards de mètres bu ndox mu neex te am nañ fi canal di Kayor am nañ fi canal di Baol dégg nañ fi les vallées fossiles kon du ndox mu mooy sunu problème tey boo jëlee loolu yépp nag tey jii nga tënk ko. ca on parle de fer tey jii lan la mën a def ci àdduna ko fusion mooy métallurgie mm. on par de sidérurgie lan la fer mën a def tey ci àdduna nga xool sunu mbokk mauritanien yi mm-hmm. il exploite dix millions de tonnes de fer par année mu leen di rapporter plus de trois cent cinquante milliards yow nga yor sept cent cinquante millions de tonnes de fer c'est le fer de la Falémé tey jii nga toog yow amul lenn loo xam ne war ngaa nasaka nocc fi ma toog di wax ak yow nii dañu war a dem sur l'exploitation pétrolière et gazière yan paramètres la ñu teg sur yan paramètres la ñu teg pour le gaz mais jàpp naa ni tey jii kon bu ñu demee ba nga xamante ni dañuy wax problème mu relance lan ngay relancer parce que wax naa la ko léegi li ma la limal lii yépp amul benn société national ula benn sénégalais bu ci defar industrie di transformer matière boobu muy produit fini wala semi fini kon bu ñuy relancer lan la ñuy relancer yépp 10 pour cent 15 pour cent 5 pour cent 10 pour cent 5 pour cent 15 pour cent di dunde TVA c'est dommage c'est regrettable mais je ne pense ni mën nañu progresser ci longueur bi nga xam ni foofu la ñu toll tey en fait bu ma doon géej ma nee xam ne lap nañu parce que endettement moom moo ñu def nii xam nga fu ñuy waxee 90 milliards par mois ñu war koy génne dina doy trop waar ci fi ñu toll nii tey jii moo tax d'ailleurs bi mbas mi amee nit ñi di wax waxu mbas nan la ñuy def ba génn ci mbas mi ñoom ñu yuuxu di wax ni tey nañu fexe ba yàlla dimbali ñu ba ñu baal ñu sunu bor bi parce que tant que boole ñu sunu bor bi ndox mi duñ ci mës a génne sunu bopp. Mhm. c'est dommage c'est regrettable nous ne bu ñuy waxee tey jii li ma la wax ni yépp tey jii. Mhm. teewul nous sommes parmi les 23 pays les plus pauvres du monde. les plus endettés. Mhm. les plus corrompus. vraiment nous ne méritons pas ça. n'a pas un problème de ressources humaines. le Sénégal n'a pas un problème de ressources naturelles mais nous avons un problème de leadership et qui dit problème de leadership nous avons un problème de casting de coaching et de monitoring et c'est dommage.